dal leen ak jàmm ci seen jotaayu koom-koom ak yokkute bu mucc ayib EcoDev est votre émission qui vous parle d'économie, de croissance dans le respect de l'environnement, de la nature, sans compromettre l'avenir des générations futures. EcoDev Vous êtes une multinationale, la grande entreprise nationale, la PME-PMI, acteur du développement ou simple consommateur, vous avez votre place dans EcoDev, la tribune du bien produit bien consommer pour bien vivre. ngeen di këru kay yu mag yi bitim rew wala di entreprise bu mag ci réew mi mo xam yor sen entreprise bop wala ngeen di gorlu wala batay rek ngeen di yittewoo wala jëfandikoo lépp lu meññee ci rew mi jotaayu ECODEV la fi nekkal. ECODEV aljuma bu jot lay doon 17h10 jàpp 18h ak Abdoulaye Cissé ci Radio Futur Média. mouvement islamique bi yëpp dajé ci Riyad ci Arabie Saoudite dajé atum 2024 bu groupe banque islamique bi réewu julit yëpp bokk di magal juróom fukki atu banque bi am ñëpp tew waaye yité yi bokkul amna ñi joxé amna ñi nangu wut si lu ñuy financer seen économie jaarale ko ci finance islamique Sénégal teew na Tidjemou, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Dr Abdourahman Sarr, Tidjemou, Madame Sek, euh, directrice générale Banque islamique Bou Sénégal, Activité Wayou institution de microfinance yi accède les financements islamiques financement islamique ana finance islamique financement banque classique ak Nakhalis Bimungi bi de institution microfinancière di jokkar bi baaraam Sénégal RFM di dalal ci Riyad. Adama Cissé président Taïsir finance islamique du Sénégal man may nek invité Abdoulaye Cissé ci ECODEV émission bi ñi qui koy ci Arabie Saoudite ci en marge des réunions annuelles de la Banque islamique de développement qui célèbre ses 50 ans.

moo xam ña fa nekk la moo xam ñi nga xam ne dañu fa daje ak ñoom te yitte yi ñuy dox yëkkati leen ndax ñoom bu ñu ñëwee dox seeni soxla xay na ñun ñooy yaatal ñooy jottali ba tax na fii tey ñu ngi ci dëkk bu mag bi bu ma sañee waxee ko noonu ñu ngi ci Riyad ci Arabie Saoudite bu yàlla defee it jotaay bi jeex danañu dem barab bu tedd ba ñaanal mbokk yi ñaanal Sénégal ñaanal àdduna bi yëpp jàmm ci umra bi nga xamante ni incha allah danañu ko teewee ñaan yàlla def jàmm ci réew mi def mbir seeni poos ni ko oustaz Aliou Sall di waxee barkeel lépp ñuy gërëm suñu équipe ECODEF bi yëpp xëy na nag tukki yi ñu nekkoon fan yi moo tax ñu tëbaloon ajjuma bi ñu génn waaye lépp ci yitte yi rek la woon ndax mu ngi ñu fekkoon ci yoon diggante Maroc ak Paris ba tax ñu mu xatoon ci jotaay boobu terewul nag tey am na ñu mbégte lool ndax dañoo nekk ci l'islam bu ma sañé wax non waaye nak jotaayu finance islamique la ndax li tax muy jotaayu finance islamique groupe banque islamique de développement moy def anniversaire 50 50 ans yu mu am lu jitu anniversaire 50 ans bi groupe banque islamique a bu jot day def rencontre annuelle am pays yi ko séq yépp juróom fukk yeeg juróom ñaar wala juróom fukk yeeg ñaar yi ko séq yëpp dañuy ñëw ñu def bilan d'activité ak it perspective yàlla defoon na teewee woon nañu ko daaw fekkee ko ren ñu koy sante yàlla bu baax am na acteurs yoo xam ne it xàmmee nañu leen ndax dañuy dox ci finance islamique nekkoon fii daaw kon tey mbégte lay doon wala sax ñu am ci euh, lu yoon woo xam ne dinañu mën a xal ñu taxaw ñoom ci finance islamique bi fu mu tolloon daaw ak fu mu toll ci réew mi doomi réewu Sénégal lañu koy séqal waxtaan wi ñu fiy dalal Adama Cissé c'est un plaisir Adama Cissé euh, jotaayu Cissé Cissé la ñu koy def dalal jàmm Adama Kira Abdoulaye ñu ngi lay gërëm di la sante di gërëm sa auditeurs yi di leen sante di leen féliciter ci liggéey bu rafet bi ngeen di def di top programme yi fepp fu mu nekk ci aduna bi di ko jottali sénégalais yi mhm. ñi ngi leen ci encourager bu baax di ñaan autorité yi aussi ñu jàppale leen ci wàllu boobu ndax lu am am solo la jërëjëf adama pour ñi ko xamul adama Cissé Taysir Finance la fi teewal Taysir Finance boo ko déggee association la boo xam ni la ci njëkk waaye dinañ ci ñëwaat qui dox ci wàllu finance islamique ci Sénégal Taysir boobu naka la soso Adama. alors Taysir Finance c'est la première institution de microfinance islamique. Mhm. Euh, mi ngi soso 2018 bi nga xamante ni ñun dañ nekkoon banque islamique di fa liggéey ci wàllu finance islamique euh, ba jeexal fa sunu mission ñu gis ne que nag Sénégal euh, entrepreneuriat. informel bi moo ëpp doole ci biir économie bi. Mhm. ñu jàpp ne kon microfinance war naa aussi yëngatu ci biir finance islamique parce que ba léegi banques yi rek ñu doon yëngatu ci ci finance islamique loolu tax ñu dem jël sunu ay dossier topp ci ànd ceeg fulla ak rigueur ba yàlla def deux ans d'instruction ñu jot sunu agrément sunu licence d'institution islamique 100 pour pour la microfinance finance islamique soo ko waxee ñu bëri seen xel dafay dem ci ah comme finance islamique la bàyyi defal yalla ah waaw mom mel ni ki euh, liggéey boo xam ne zakat mais bi business la wax dëgg fa activité presque microfinance la activité banque la nak da fay am ci charte yo xamné mom lay tegu lan moy différence am ak microfinance bu classique. différence bi c'est une différence fondamentale nak différence bu am am solo la te lol nit ñi dañ ko wara a xel waruñ di jaawale finance islamique ak finance classique wala finance conventionnelle. Mhm li leen wutale mooy finance classique finance conventionnelle dañ lay jox xaalis loué la ko teg ci intérêt dañ lay jox nangam ne la teg naa ci nangamu intérêt ab deal bu jotee nga fay ma nangam alors que nag finance islamique danaan la loo bëgg def comme projet ñu bokk projet bi ñun ñaar nga indi sa xam-xam ma indi suma alal suñ paree ñu séddoo bénéfice yi nit ñi répartiré bénéfice yi nag foofu lay di ñëw indi le taux taux bi du taux d'intérêt mais taux de partage la de perte ou de profit lu am solo nag. de perte ou de profit damay bañ damay bañ boo waxee ba pare suba gars yi songo ma ne ma ah ki li mu wax neex na de nak naka la demee c'est-à-dire amul kon lebal la teg la ne la app bu jotee fayal weeru dot ñu dagg la nii naka lay demee dëggantaan. nu muy demee dëggantaan mooy boo ñëwee nañu da nga bëgg xaalis bu weex. tàll parce que damay bañ ni nga ko waxee dafa neex trop. voilà donc jar na leeralaat galgal boo dee galgal wala lu ci nekk ci secret ëpp naa def parce que finance la boo xamante nii euh, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moo ko sos ci ni mu daan jëflante ak juif yi mhm. ci euh, épogam mu doon jëflante bu juste donc c'est une finance juste mooy premièrement d'abord bien leen i financé mhm. maanaam duñ la jox xaalis nga dem ak moom duñ la lebal xaalis nga dem ak moom bien lañ lay financé bien boobu balaa ñu la koy financé dinañ xool ndax lii mun naa jur profit. mën naa jur bénéfice parce que ñun bénéfice leen di seddoo su bénéfice mënta am duñ la financé jox la xaalis nga dem ak moom bu weer dee nga ñëw fay ñu teg ñu intérêt loolu charia nangu ko duñ ko jël boo ko xoolee koo gis ku nekk buy jël xaalis bagage a ko tax a jóg. Hmm. bagage boobu nag ñun moom leen di financé jox la nga liggéey bénéfice ba nga ciy am nga génnee ci suñu wàllu jox ñu ko loolu defe naa dafa leer pour dee tailleur bi ma jox la exemple. Hmm. bu ñu ko jëndalee machine xëccal ko. Euh, cest bu ñëwee ne dama am projet sama projet lii lay demee damaa war a jënd maté matériel. ñu bëri dañ naan cinq cent mille la solo pour jënd machine. waaw yéen finance islamique bi du ngeen ko jël cinq cent mille ne ko am demal jënd machine. déedéet naka ngeen doxale dañuy dem laaj ko ban machine la bëgg. Mhm. mu indil ñu spécification technique machine yi mu bëgg yëpp ñun ñu dem wuti machine bi ne ko machine baa ngi nii. nangam len la koy jaayé nangam joju mën nga ñuko fay ci juroomi wër juroom benn wër wala ñaari at ñetti at ñenti at ci lo xamoo xamanteni dañ ci jubo manam luñ jënd la ñun ba paré jaayat la ko tek ci sun bénéfice xam nga loolu do do amu ci dara du ah, leer nañu la mais mais adama mu ngi bëgg rejoindre finance classique bi hein parce que limu wuté ak finance classique bi moy mhm. euh, dama la jaay bien mhm. alors que kële daf la louer xaalis ah mais xaalis bi bien la ci jëndi. de waaw mais xaalis mun na cee bañ a jënd bien aussi. te li ci ah. ëpp li ci ëpp ci liñ seetlu détournement d' objet dafa bëri ci finance conventionnelle. Mhm. loolu moo waral banque yu bëri sax léegi boo xoolee balaa ñu lay lebal ñoom tamit dañuy def gëstu yu bëri. Mhm. gëstu yooyu nag dañ ci fekk si finance islamique parce que finance islamique ki lay ki ngay financé da nga koy jàppee ni sa partenaire. Mhm. doo ko jàppee ni sa client. parce que ngay jàppee ni sa client da nga koy jox rek mu dem ak bagage. waaw mais du gagné double parce que leen ko lebal. Mhm. da koy fay ci ay app yoo xam ne nii kii la ba pare da ngeen di bokk ak moom business bi parce que bu ma déggee bu baax noonu nga waxee da ngeen di bokk ak moom business bi wala. non déet euh, ñun liñ ci war a am mi ngi ci biir li ñuy fay par weer. day leer parce que contrat bu leer lay doon. dañ koy boo ba léegi exemple lu tailleur bi. waaw mu ne la machine bi 500000 lay jar. waaw nga dem ne ko spécification technique mu jox la. waaw nga jëndal ko machine bi jox ko. waaw ne ko bi yaa ngi koy remboursé ci. 600000. yaa ngi koy remboursé ci six cent mille. ci biir juróom-benn weer. ci biir juróom-benn weer. voilà yow business am ba. bokkuloo ci. déedéet doo ko ne. cent mille yooyu tegu ci rek laa ci moom. <laughs> doo ko ne léegi atelier bi bokk naa ci comme man maa jënd machine bi daal. déedéet machine bi moom moo ko moom su kaw bu ko fayee ba mu jeex tàkk. su fayee ba mu jeex moom moom atelier am. moom moom moom atelier moom moom. am su ko fayee ba mu jeex tàkk na tant que fay ko ba mu jeex tàkk ñoo ko bokk. waaw léegi léegi nag jox la exemple fayin boobu eh, Adama ñu taxaw parce que c'est très important li ñuy wax nii mhm. euh, ci modalité mhm. bu weesoo app bi mhm. est-ce que yéen a gën a moins cher financement classique waaw gënuñoo foofu la hein? non gënuñoo moins cher gënuñoo cher parce que duñuy comparer sax suñu bopp ak ñoom wante nag li ma la mën a xamal rek mooy gënuñoo moins cher gënuñoo cher booy wut finance marché bi daal ngeen nekk booy wut finance bu juste booy wut finance bu Depo ak sharia mhm. ñewal ci finance islamique ñeriñ rek nga ci am li la kay won gis nga bi crise financière amé ñi nekkon ci finance islamique ñom kese ñoo ci génn sans difficulté mhm. sans couac ñi nekkon ci finance conventionnelle nga xam fofu spéculation ba fay bari mhm. ñom ñoo gëna a sonn ñoo gëna daanu dañoo daanu ba xalangu mais ci finance islamique rek moo résister au choc. mais ñi jëloon ci yoonu finance islamique ñoo am ngoru fay wala ci la la eh, ñi jëloon finance islamique dafa bëri li ñuy wax spéculation. Mhm. xam nga spéculation mooy nit ku tollu diggante nga jaaye ko loo xam ne. ëpp na mhm. njëgam foofu yoon. te ci mhm. finance islamique amul loolu. tey man mun naa ñëw am benn action. action laa wax de euh, action yu ma jëndoon un million. ma toog ba si kanam gis ku soxla action boobu ma ñëw jaay ko ko waat. un million cinq cent ma toggaat ba si kanam gis ku soxla action yooyu ñu yaayit ko ko deux millions waaye bañ demee ba ci biir xool société ba nga xam ne moo porté action yi société boobu ma ngay fayit hmm. kon ñu ko évaluer xool ba ci biir a biir société boobu tey boo ñëwee ci action am hmm. boo ko calculer en réalité matul sax cent mille francs loolu mooy indi crise financière yi hmm. maanaam dañuy jël ab société di ko yëkkati di ko yëkkati di ko yëkkati ba mu egg afu boo xamante ni xaaju faa jege léegi nag crise am crise yooyu nag bu amee yow sa machine boobu nga yoroon. lam hmm. yoroon moom lay jar ba léegi. la nga deseloon banque bi loolu nga deseel moom ba léegi maanaam c'est une finance réelle. Hmm. amul benn dimension fictive. te nag finance conventionnel dimension fictive bi moo ci ëpp loolu mooy spéculation moom ngay gis tey luy jar lii tey suba mu jar lale ci kaw lan ci kaw bëgg ak jënd ak jaay rek la. Hmm. du bien bi moo changé de da ngay gis ñu ne la tey kilo kafe nangam lay jar. suba nga gis kilo bi yokk wala mu mm-hmm. wàññeekuwaat pétrole bi gis nga ko ba tey même pétrole bi la day yéeg di wàcc di yéeg di wàcc yéeg di wàcc boobu nga foog lu ko waral spéculation rek la day am ci marché bi léeg-léeg mm-hmm. nga am soble denc ko wala nga am suukar denc ko di xaar bés bu jekk créer créer mm-hmm. pénurie bu amee benn fausse pénurie prix bi yokk loolu aussi bokk nañ ci li ñuy wax spéculation yooyu yëpp nag bu fekkee ci finance yi nga nekk da la ciy dimbale parce que finance islamique ci bien bi lay yam amul spéculation da amna yenen instrument yo xam pour développer fi ci émission bi day compliqué mm-hmm. mais finance islamique dafa nangou xatché mën nga jënd dara né nit ki li ma lay jaay ni dama tollu digënté mm-hmm. sama auto la auto ba ngi jar 10 millions waye dina la ko jox ci 5 millions parce que dama toll diggante mm-hmm. waye fi ak 1 an bëgg naa ñëwaat jëndaat ko ci yow ci 8 millions donte oto bi 10 millions lay jar man dinaa di ma ko jaay dinaa la ko jaay 5 millions waaye damay ñëwaat jëndaat ko ci yow ci boo xam ne dañ ciy su deal bi jeexee te ñëwaatoo ma feetoo oto bi ci 5 millions donte 10 millions lay jar. Hmm. su fekkee ci diggante bi ñëwaat nga cinq millions yooyu nga ma ko jaayoon danga nga may tegalaat 3 millions wala 2 millions jëndaat ko ci man 8 millions ñu juboo ci loolu loolu day euh, dimbale nit ki. mun nga aussi dem ci benn programme signé ko toog ak sa xel. nalaw ba yeewu rëccu am nga sañ sa ñu ñëwaat def li ñuy wax rétraction mhm. ñu delloowaat la lépp li nga signé ñëwoon ñu annuler contrat bi ah c'est vrai que même contrat ka classique dina am ay délai de rétraction du yàgg non pour won leen rek finance islamique nu mu xóotee te xam nga loolu yëpp ay innovation la yu nit ñi mhm. foog ne lu bees la te fekk mhm. daf ci musa yàgg parce que comme ni mu la wax rek yonent bi daan doxaleeg juif yi te ci noonu rek leen ko xoolee mais mais mais lu tax finance islamique bi bon évidemment Sénégal mu ngi tàmbale mais taxawagul quand même c'est à dire nit ñi li tax taxawagul mooy nit ñi dafa am luñ miin nit ñi liñ miin mooy nga jox leen xaalis ñu dem mhm. loolu leen miin miinaguñu jëndal ma lii defal ma lii mais boo ko xoolee état yi même mhm. banque islamique de développement mhm. li ci ëpp ñoom nit ñi liggéeyee oui xam nga état nga ñëw ñoom suivre seen programme finalement sax yow état tabaxal hôpital ak jox ma xaalis ma tabax ban hmm. moo la ciy gënal. Hmm. tabaxal ma hôpital bi moo lay gënal. bien sûr ah, na xaaral waaw da nga ñu fekk ci jotaay rek. waaw tur bi naka la. kii mooy Thierno Lo eh, il travaille Thierno waaw Thierno ci cabinet président de la BIT. Ah, na nga def Thierno c'est des connaissances qu'on a rencontré l'année ah, waaw waa ju baax ji Assane waaw Assane Ba leen koy jaale bu baax toute la communauté ah, Ablaye Cissé toute la communauté TFM TFM TFM TFM dégg naa bu baax euh, ma doon wax sama waaw benn Umar benn certainement benn Umar la waaw benn Umar euh, Ndiaye non euh, kenn seen collègue qui ah, est euh, kii la Demba Demba Ba. non non kii Oukfali Badji. ah Oukfali Badji oui oui oui. daay mënu ma ni rek fi sax dafa dem beneen mission. ça il n'est pas là oui, oui, tout à fait. tout à fait ça va alhamdulilah ça va merci beaucoup Merci beaucoup. Merci daw Merci beaucoup. merci beaucoup merci beaucoup ah, merci beaucoup. bien sûr c'est les aléas du direct voilà mbokk moomu l'eau petit vice cabinet du président de la BID bi vraiment BID aussi vous ko cadre sénégalais Hassan directeur de la communication au groupe banque islamique Lesan. dafa beaucoup lu sax ci cinquantenaire bi ndax bi ñu ci assemblée bu la di le cinquantenaire bi a trois mois ci hmm. fi la waaw fi lañ ko denc sax moom Assane Ba ñu koy jaale soxnaam Tabara mu ngi Sénégal di ko jaale jumeau hmm. Ousseynou Ba ak frère am Malick ak njaboot gi yëpp ñu ngi leen koy jaale vraiment Assane ku amoon taxawaay la ci banque islamique te cadre yi fi nekk yëpp tamit moom daa amoon na ci taxawaay bu rëy boo xamante ni moo tax ñu koy nuyu dafa tombe sëriñ bi loo dugg ci suñu waxtaan Fali Badji aussi ci cadre yi nekk fii la moom di toppatoo walu agriculture am ci xarañ bu baax xam naa du ñàkk yeneen i jotaay dinañ ci waxtaan ak ñoom ñu ngi woon Adama fi ñu taxawoon mooy lu tax finance islamique bi nit ñi jëlaguñ ko nga ma doon expliquer ni nit ñi dañoo tàmm jox ma xaalis ma jox la mais pas jëndal ma matériel pour mais mais naka la ñuy def ba mu dugg ci maay nii waaw nit ñi def rek yaa ngi doon expliquer ni banque bi sax ni muy liggéey ak état yi entre tabax ma hôpital ak jox ma xaalis ma tabax hôpital ban moo war a gënal suñu état yi alors li ci ëpp banque bi moom mu tabaxal la wala mu defaral la moo koy gënal mhm. parce que loolu moo gën a dëppoo ak finance islamique te tey sénégal euh, projet leen war a jiital ci xaalis mhm. gis nga bu projet jiitoo xaalis porteur du projet bi mhm. du soxla laal xaalis bien sûr naan la man defaral ma rek na baax mais ba euh, état yi mel ni nit ñi suñu état yi tam jox leen bu mo leen gënal sax ko ko projet ko mel dañ ko mel la jox exemple mhm. wax <laughs> ma maire mhm. dama wut hôpital dans le cadre de la coopération ah, coréenne nga maire maire ci mandat passé d'accord euh, ma soxla hôpital dox dox ko ak euh, ministre Eva Marie Kolsek et la coopération coréenne COICA coréen yi ñëw ma ne leen man de hôpital laa bëgg ngeen tabaxal ma soxlawu ma xaalis ñu ñëw indi seen ay ingénieur jël seen ay levé ñu jox leen suuf ñu may jox leen cinq hectares ci diggu Passy pour ñu defaral ñu hôpital bu mucc ayib ñu indi seen ay ingénieur defar seen ay étude defar seen ay maquette seen architecte lépp yemb diggante bi ministère des finances bi changé ministre de la santé changé am beneen ministre bu bees bu ñëw bu ne non moom projet bi moom moo koy tabax nañ ko jox fonds yi mu tabaxal ko boppam alors c' était un budget de 1 milliard cinq à peu mhm. près 2 millions d'euros euh, projet bi kon changé waat complètement parce que mhm. ñee defaroon lépp ba war a ñëw tabax si mhm. ñu ne leen léegi ñoom ñu tabaxal seen process luñ ci jublu nag ba bëgg a tabaxal seen bopp parce que gëm naa ne tabax hôpital Corée ñoo ñu ko gën a mën te ñoom ñoo ñu koy tabaxal ci seen xaalis bu amul leneen luñ ci jublu jaruloon ñu naan nañ ñu jox xaalis bi ñu ñu tabaxal sunu bopp te loolu nag moo nekk ci sénégalais yi li ci ëpp dafay am tuuti détournement d' objet mhm. te loolu dëppoowul ak finance islamique mais te gis nga loolu dafa tax léegi suñu diggante ak bailleurs yi sax changé bailleurs yu bëri léegi projet yi bu ñu ko kiyee ba pare ñoo koy topp doxal ko de bout en bout process nag dina am loo xam ne ci local lañ koy defee mais ñoom ñu ci bëri lu bëri dañuy bëgg daal banque mondiale day doxale noonu mca américain dañuy doxale noonu parce que dañoo seetlu ne surfacturation bi day ëpp Mm-hmm. parce que loo xam ne ni tey yaa a liggéeyee un milliard boo ñëwee euh, liggéeyee ko ci trois milliards. kon day fekk ne mënoon ngaa am ñetti hôpital ci benn hôpital. Mm-hmm. xam nga loolu tamit nag boo ko defee defati ko ki ko seqal dina dem ba ne ah léegi nag bàyyil ma xoolal sama bopp. bu fekkoon ne nii projet kese kese boo ñu tax a jóg te projet kese leen bëgg. Mm-hmm. duñ soxla laal xaalis bi. walaay dëgg la parce que gis nga fan yi ci ci télé bi professeur Moussa Seydi plaidoyer la bu muy porté moom tabax na. service des maladies infectieuses et tropicales smith bi nga xam mom moko tabax ci financement yu mu wuti partenaire mhm. la mu ci dugal te service boobu mo gëna a yenn hôpitaux yi mhm. la mu ci dugal lañ ko tabaxé danaka yeneen hôpitaux yi nga xam tabax nañ ko bo xolé mat na ko ñent yoon modèle bobu da koy bak ci ni nga xam ni mën nañ ci rationaliser yorin euh, loolu tam modèle la bo xam finance islamique bi ni ni ni muy doxalee non rek la finance islamique doxalee c'est un modèle qui est basé sur un bien et un bien juste maanaam amul surfacturation léegi léegi ah, jeune entrepreneur yi. amul nëbëtu nga xam léegi léegi damay bañ booy entrepreneur yi woo ma suba ak yooyu. imaginer ku am ku xam ne ni daf bëgg dellu ci mbay mi xam nga Sénégal léegi mbay moom dafa xew a xew. Mhm. Ah, jël nañ ko ku nekk bëgg na cee dox ak yooyu. bon nu gouvernement bi sax ministre la l'agriculture moom gis nga ku ci yooyu lay dox. Mhm. bu amee ku xëy suba ne laa ah, man sama tool bee dama ci bëggoon a dem doxal xam nga mbay moom mën na am a priori ci ne dana dox bu fekkee am nga moyen waaw nu muy doxalee dañ koy jëndal matériel yi muy bayee wala dañu koy jox mu jëndi jiw jëndi loué ay loué ay surga wala loolu naka la mën a demee liñ ci jàng ñun ci euh, finance islamique euh, prophète sallallahu alayhi wasallam daf ci créé woon benn instrument financier mhm. bu ama am solo bu siiw bu ñuy wax salaam mhm. salaam c'est un instrument exclusivement destiné pour l'agriculture pour affaire mbay rek ko tax a jóg mooy lan mooy ne yow agriculteur bi institution bi da lay financer entrant Mhm. financer la mooy semence. Mhm. financer la euh, jiwu financer le engrais. Mhm. financer le matériel. nga dem jiwi ji. su saxee ba nga récolter ba jaay dooru ñoo fay. mën nañ ko gën a sophistiqué encore mu gën a li euh, ñuy wax euh, salaam bi nga xam ne dafay ànd ak option d'achat. mooy ban mooy dama lay lebal nga jënd engrais jënd jiwu jënd matériel. te boo bayee ba pare la nga récolter mu jëndaat ko ci yow priorité ma nga jaay mais pourtant loolu am na parce que xam naa modèle évidemment émission bi dañuy traiter question yëpp COPEGA, collectif des producteurs et exportateurs de graines, ouais. à travers certains de ses membres, notamment Abib Thiam, président Abib Thiam, mmh. dans le Saro, am nañu am nañu modèle coopérative. Ouais. yoo xam ne ñoom dañuy jox baykat yi ñu bay. Mm-hmm. bu ñu paree prioritairement ñoom ñooy jënd. te ni ñuy jëndee sax dañu koy fixer d'avance. dañ koy fixer d'avance. bu ñu ko fixer danaan la dina la tegal au minimum nangam ci prix bi nga xam état mom lay fixé. waye nak amna conditionnalité bu la nak bo mhm. boo lé nak nga jaay. option la motax tax mu la option la. option d'accord d'achat yénit non option yénit da nga naan finance islamique tamit non la c' dire gis nga finance dañ ko gëssul mais li ñi def ni yépp ñom euh, amna cadre cadre. jëflante nañ ko ci ay ati ati ay junne at ci ginnaaw ñu ngi ko jëflante ñu xamuñ ci dara buñ ko toppee sunu mbay dina soxeeku parce que c' est le meilleur moyen de soxali mm-hmm. mbay bi. Mm-hmm. te en plus du am benn njuñ njaaj du am benn tappale. mais financement ñan ñan ñoo ko yor Sénégal ah, bon évidemment banque islamique la ñu xalaat mais banque islamique pratiquement banque classique. dafa des lu bëri parce que finance islamique boo xoolee tey Sénégal depuis deux mun naa ne depuis ba léegi. Mm-hmm. ñu ngi ci théorie bi ak séminaire yi. exécution bi moo des. maanaam tey foo tourné Sénégal yaa ngi dégg finance islamique. waaw gis nga ñu ngi waajal benn journée finance islamique sax la bu. tout le monde en parle koy def chaque année def naa ñu ci 9e édition bi xawma tout le monde en parle <laughs> tout le monde sait en parler mais il y a très peu de gens qui sont actifs dans l'exécution même de la finance islamique. comme ñun est ce xaalis mu ngi génn dëggan daan. tuuti tuuti nag foofu sooxee na parce que ñun suñu alalu bopp leen jël 1 milliard dugal ko ci biir microfinance islamique bi ñuy wax tay sir doon séntu aussi programme bi nga xam ne BID tëral na ko ak état yi muy promise. Nous avons aussi des fonds de refinancement pour bit mi ngi denc. 45 milliards. cinq milliards moo fonds yi kon. promise moi les tous les fonds destinés aux microfinances islamiques. D'accord. banque islamique convention le boom signé avec l'État du Sénégal avec un état membres Nous avons da ngeen société de microfinance islamique Nous avons jox fonds bi ngeen leen koy mhm. parce que état garantit garantie convertibilité Nous avons financé en devises, dollar ou euro. Mhm état mo koy jël et à travers Promise Promise organiser les institutions joxaat leen xaalis boobu pour ñu mun a financer. Mhm. les les porteurs de projet yu mel ni yéen la koy jox pour ñu redistribuer. Promise bi nag dafa sooxe lu bari bañ ko commencé ba léegi benn dërëm génnagul. mais Promise est-ce que mu ngi jot. parce que est-ce que est-ce que tamit convention yi banque yi groupe banque islamique signé tamit. est ce que est-ce que xaalis baa ngi yegg si dëgg ñaar am na. Mhm. bi ci njëkk mooy. Euh, Promise est-ce que mission bi ñu yore comprendre nañ ko bu baax est-ce que ñu ngi koy doxal bu baax loolu question la. am nañ yaakaar ne la réponse est oui banque islamique seen ay procédures yéex na yéex boo xam ne lañ signé ñëwoon daaw ak ñoom muy cinq milliards yoroon a génn ba tey fi ma wax ak yéen génnul kon waa promise war nañu cinq milliards yu daaw ya cinq milliards yu daaw ya ba léegi yegg seegul ba léegi yegg seegul te ku yor projet di xaar xam nga loolu dina doy waar. waaw léegi lu tax waa promise ñëwoon ñu wala ministre de l' économie ne leen sëñ bi la ngeen signé woon daaw ba léegi jotaguñ ko balaa ñu wax waxi ah, leneen. am nañ yaakaar ne son collègue. Euh, waxtu yi may wax yow sax ñoom ñu ngi woon ci conseil des gouverneurs xam naa ni waxtu yi ngeen ñuy déglu yéen mbokk yi ci àjjuma ji boobu wees na waaye waxtu yi may waxtaan ak Adama uh-huh. ñu ngi ci conseil des gouverneurs naa du plan et de la coopération pour Sénégal comme moo jiite délégation Sénégal bien ren. ma nga fa xëy lu lu lu mu war a mën a ne ko an lañu signé won ñëwoon daaw. si si bu fekké ne nii le ministre euh, chargé de de la microfinance et de l'économie solidaire. Mhm. jox na ko passation bu baax. ci côté boobu avant muy ñëw Aline Dione gisuma ko fi de waaye moom. waroon mëna non Alioune Dione du fi nekk. parce que qui représente le Sénégal fi c'est le ministre de l'économie Abdourahmane Sarr mais mhm. buy ñëw day lëkkaloo ak collègue am yëpp xool programme banque bi fi mu nekk yëpp parce que banque bi dafa bëri ay programme mhm. ministère de l'élevage boo fa demee am na PPDS mhm. boo demee feneen aussi am na fa yeneen fonds euh, donc banque mondiale euh, banque euh, afrique banque islamique de développement li muy dugal xaalis ci Sénégal ci ay projet bëri na ce qui veut dire que le ministre de l'économie qui représente le Sénégal balaa muy ñëw day laaj yeneen collègue am yëpp def évaluation rapide xool projet yi fan la goulot d'étranglement yi nekk bu ñëwee jéem ci waxtaan ak ñoom ñu développé ko kon gëm naa ne le ministre de la microfinance et de l'économie solidaire, on a une promesse on difficulté, hmm. parce que le document est bien bon, de débloquer. Mais attention, promise vie, programme, le hmm. programme mmh. de fin mai ou fin juin. Tout à fait. C'était un programme de 5 ans, 5 ans et bon, de ne Donc 5 milliards d'euros, vous ne gagnez pas, fille, avec Niari Wer, les caducs. Ah, alors, mon, 5, 5, 5 milliards, je ne sais pas si je sais pas si vous avez gagné, je pas comme jeex na rek nañu faf maasale benn yoon vraiment du xaalis bu takku ci côté bid oui lu mhm. ndaw a ndaw la parce que fonds bi réellement le fonds est de quarante cinq milliards cinq rek leen jëlagum ne ñu essayé e. mhm. mais quarante cinq milliards leen signal pour Sénégal tey ji waroon na fekk ñu consommer les quarante cinq milliards dans les cinq ans mhm. mais ci cinq ans yi sax génnagul dërëm consommé ah, guñ ci te loolu dafa bëri nag ci programme yi nga xam ne nii Sénégal am na ko Sénégal ligne de financement ko bëri na bu ngeen ko doon topp di dem ci ministère yi Mais ngeen gis ay lignes de financement élaborer programme pour absorber fonds yi wala fan lay fan lay. wala alors question bid la wala ci ñun la. c'est une question très importante. Mhm. dañu mënul élaborer programme yi wala processus bi la. Sénégal li gëna mën élaborer programme li gëna nak moy lever les conditions de déblocage ce qu'on appelle les conditions préalables de décaissement. Mhm. parce que bo signé convention de financement. dafay bëri ay conditions suspensives dañ lay mhm. defal annexe mhm. annexe yi ñu defal fa lu mat ay ngay teggi benn par benn euh, euh, mhm. te benn bu ci manqué rek c'est un blocage doo mën pour dem feneen voilà doo mën a tëb pour jàll ci foofu nag ñun foofu la ñuy mais kon ci ñun la parce que li ma bëggoon xam mooy est-ce que ci ñun la wala gars ñoo ñoo ci laxas jaar bi ñu toll nii nii nii ñuy wax nii promise lépp lu mu waroon def def na ko ñun ñi nga xam ne ñun leen sélectionné ñu war a bénéficier ci financement boobu lépp lu ñu laaj joxe nañ ko lii yéex fi ñu toll nii lii taxaw ci bid la bit moom tamit nag pourtant li muy joxe feneen bari na de parce que dañuy dégg yeneen am na pays yoo xamante ni daf mel ni yéwén nañu lool ci seen i mbir de. yombuñ affaire nag waaye seen mbir gaawul. yéex na trop na ñoo loolu dañ koy dégg luñ koy wax. lu koy ci jotaay bi ah nee nañu ñoo xam ah. suñu côté xaw nañoo gën a yéex. mais xëy na loolu ci suñu autorité la aussi suñu suñu procédure bit moom koo laaj ko jëflante ak bit xam na ne procédure bit compliqué na lool man mi di wax yow J'étais le président du conseil de surveillance, euh, du conseil de, de, supervision de la haute autorité du WACF. Je mhm. PCA WAKF WACF bi ah. WACF bi fii ñëw nañ fi ñëwati fi. Mhm. am fi financement 20 millions de dollars. pour a tabax immeuble WACF. Mhm. Euh, président Sall tax terrain bi président jox nañu terrain bi yooyu. amoon ay difficultés avec le maire Alun mon moom a le projet beau mais bit paré woon nañ pour joxe ci xaalis mais fofu aussi xaalis bobu pour génne ko ay procédure yi dul jeex la bit moom ku jëflante ñoo xamné procédure la dañu ah, bëri président ma bobu parce que jot nañ fi jotal ci dalal ci jotaay bi même euh, directeur administrateur euh, autorité waqf bi Racine Ba loolu jot nañ ko fi waxtaane parce que président Macky Sall ci boobu impliqué woon na ci jox leen ci terrain bi et tout le président de la République impliqué kay xanaa du maire moo koy xaw a xaw a tënk nag mu xaw a yéex noonu moo ma jaaxal 2018 la ñu président jox terrain bi ba tey fi ma waxee yow ni mënuñ faa teg xeer Alioune Ndoye difa yar ay xar ay xaru laa dugg <laughs> loolu moom jaaxal nañu yaa ngi cokka sa collègue maire de loolu moom jaaxal nañu trop man moom loolu moom daf ma jaaxal moom <laughs> mais comme maire nga woon xam nga yéen maire yi léeg-léeg ngeen laxas jaan pour aussi kii euh, demander le plus pour le moins après quoi mais maire am luñ ci weccoo déedéet man façon boobu mënuma ko comprendre hmm. maire da nga war a jiital sa askan sa réew parce que li ñëpp bokk leen la denk fofu immeuble bobu ñu tabax ko fofu dafa weesu sax plateau nekkatul sax mbiru plateau évidemment mbiru sénégal yépp on va dire un mot sur le waqf waqf moy évidemment presque association humanitaire bi nga xam aussi moy capté yeneen i fonds diko investir pour gëna mëna dimbalé communauté bi immeuble bobu revenu yi nga xam mom mo ci wara a juddoo yëpp parce que ñu wax fa ni mu juddoo fi ci arabie saoudite amna ñu ñom tay patrimoine bo xamanteni ni la muy jur moy del wat ci zakat yi del wat ci ndimbal yëg moy tax moy tax duñ am moo tax fii pauvre du fi soxla yalwan da ngay mm. tok fa nga tok Mm-hmm. ndimbal li fekk la fa wax fa loolu lay jëriñ. tey modèle boobu lañ bëgg a développé Sénégal aussi modèle boobu tey moo tax ba nit ñi ba tey taalibe yi mënuñ leen a génnee parce que taalibe yi boo leen génnee noo leen di dundalee loo leen di jox. Mm-hmm. loi yi génn ci immeuble boobu. près de 150 mm-hmm. millions par mois. c'était destiné justement euh, à l'éradication de la mendicité des talibés au Sénégal. ci mbaa du ngeen professionnaliser mendicité bi tamit. parce que nit ñi bu ñu déggee ni finalement mendicité bi léegi. jël nañ ko en charge évidemment yeneen problématique la de waaw mooy li ma lay wax rek parce que xam nga finance islamique moom foi bi daf cee jiitu hmm. gëm-gëm gi hmm. bu ci tromperie bëree rek modèle bi day euh, biaisé hmm. euh, te aussi nit ñi bari dañ koy euh, soofeel te loolu bàkkaar bu rëy la mooy jël loo yelloowul bien sûr tey li ko jiitu mooy foi am ngëm-ngëm am gis nga tey sarax fu ñuy joxee sarax nii yow mi nga mm-hmm. xam ne sa kër yaa ngi ko bàyyi lépp mat soxla ko waaw wax dëgg buñ la ko joxee nga ko mm-hmm. xañ ko koo xam ne nii yelloo na ko loolu bàkkaar la te nit ñi da ko seetlu ci jumaa yi buñ ñëwee fu ñuy joxee dañuy tàllal loxo da dañ ko moytu bu fekkee ni nii yow la ñuy joxee mat la nga ko bu ko jël bàyyi ko ñeneen yi mais euh, exemple bi ma la si jox rek ah. dafa ma musa dal fii Turquie mm-hmm. ma dem Istanbul ànd ak sama benn rek comme ñun dañ tàmm bu ñu demee si jumaa yi bu ñuy génn rek ñu génn jox ñu jox ñu génn ci jumaa ji ni am ñu toog taxaw tàllal seen ay palaat ak lu rek di ko jox euh, julli di doon julli ci jumaa ji ma dem bay jël ni euh, turki bi mu àndal téye sama loxo ñu génn ñu avancé ba ci kanam mu ne ma yow yaa ngi ñëw dugg avion business class wàcc hôtel 5 étoiles lekk ba nga bàyyi ko fa li boo ko jëlee la bul jëlati yu mel li ma lay wax ni 10 ans en arrière mm-hmm. depuis boobu ba léegi dama koy bàyyi xel mm-hmm. waxuma la nak ki nga xam mom lol ci lol rek lay dox Mm-hmm. loolu baaxul mais bu fekkee ni Sénégal tey sénégalais day fay saraxe lu bari. Mm-hmm. on a fait une estimation de à peu près vingt cinq à trente millions de francs CFA par jour le sénégalais di sarax. Mm-hmm. yow li ngay joxe man li may joxe keneen. donc imaginez vingt à trente millions de francs par jour bu fekkoon ne ni organiser nañ ko ni ñu ko war a organiser mu jaar mu jaar fi mu war a jaar ñi ko soxla war ko jot. kenn warta yaramal war nañ ko mën a organiser bu gën a baax. kenn warta yaramal les sénégalais donne beaucoup mais donne mal c'est très désorganisé. alors yéen lan la war organiser. lan moo leen fi indi en tant que institution microfinance mënoo leen leen woon a toog promise ñëw lijjanti ko ànd ak ministère wala yéen ci seen bokk am ngeen relation ngeen développer ak ay. partenaires ak banque bi aussi. waaw loolu question bu am solo la yàlla dafa def ne ñun banque bi liggéey nañ ci. Mm-hmm. lu jiitu ñuy ñëw ci ay programme promise ak programme ah. anciennement banque islamique man Tamwil Africa Holding laa nekkoon mm-hmm. Tamwil c' est une filiale de la banque islamique de développement et de ICD ñoom ñoo leen yore loon toutes les finances toutes les banques islamiques yi nekk ci biir Afrique de l'Ouest mm-hmm. mooy BIS banque islamique du Sénégal banque islamique du Niger banque islamique de Guinée banque islamique de Niger et banque islamique de Mauritanie man maa nekkoon boobu yëpp bi yàlla defee ma jéxal fa liggéey bëgg continuer ci liggéeyu finance islamique ma créé sama institution bop de finance islamique mhm. donc période bi nga xamné ma nga fa doon liggéey bari woon na mission yi may ñëw fi di la kolok sama collègue yi min leen xam leen mhm. xam ñu yor programme yi mo tax nak may ñëw di jéma jappalé wa promise pour li nga xamné mi ngi laxasu ñu jëm ko làqarti mu gaaw bu fekke ministre baa ngi xëcc fi promise di xëcc fi ñun tamit ak suñu xamé ñu xëc rek day tax mu gëna gaaw ñu di bu jëm Sénégal mhm. <laughs> loolu moo ñu fi indi non dëgg parce que euh, euh, xam nga cadre yi yaa nga gis euh, na cadre sénégalais yu mais c'est vrai que banque bi institution bu la pratiquement 182 milliards de dollars yoo xam ni nii dugal nañu ko ci investissement en Afrique mhm. lu bari la banque aussi di dox ci li ñu maanaam sustainable development, maanaam investir ko ak développement yu yu développement durable mhm. loolu naka la ñuy def ba mu gën a ci suñu réew yi luñ ci mën a gën a def rek mooy fexe ba nga cadre yi nga xam ne ñu ngi ci biir banque bi parce que banque bi gouvernement la mhm. mi ngi mel ni nga boolee réew sénégal côte d'ivoire guinée benin ci benn organe noonu loolu mooy banque bi mhm. gouvernement bu bu bu la bari bureaucratie bari procédure bari it aussi ay lobby mhm. ak yu ni mel euh, li ñu gis nag mooy ñi ci dàq lobby ce c' est les tunisiens ñoom ñoom ok ñu ngi téye banque bi bu baax di jàppale seen biir si seen biir. Mhm. africains yi ñëw ci ëpp ci euh, nombre. Mhm. mais seen solidarité mhm. ak seen. Euh, seen ñàkk solidaire moo tax amuñ ci poids moo tax amuñ ci poids. mais bokk nañ ci ñi ci gën a bari bokk nañ ci aussi ci cadre yi gën a décisif ëpp ci xam-xam. mais bariwuñ ci responsabilité. li ñuy gis léegi pouvoir bi day déplacé wu sax. Malaisie am na doole bu rëy évidemment seen un grand pays musulman. Bangladesh tamit parce que seen premier ministre tey. waaw ah. fës la ci àdduna. Ah. donc pays yooyu dañu am doole trop ci représentation. Ah, banque bi ndax communauté wu jullit ñoom ñoo ko seq. fii daal bu fekkee ne ni cadre yi fi nekk gën ñoo am solidarité aussi surtout président Afrique yi nga xam ne nii aussi ñoo bokk ci banque bi. Mhm. gën a booloo ñoom war nañoo gën a mën a tirer profit ci banque bi parce que tey li ñu gis ci banque bi Afrique ñi ci gën a bénéficié wu Égypte la ak Soudan. Mhm. ci ci wàllu financement. ok dëgg la Sénégal bokk na ci pays francophone Afrique de l'Ouest quand même Sénégal moo ëpp ci ñi ci bénéficié wu. Mhm. mais ba léegi dafa des mën nañ cee am lu ëpp loolu. parce que maa ngi lay wax ne 45 milliards leen war a jox microfinance yi. Mhm.

ñoom it am nañ fi teewaay parce que président Baat mu ngi fi. participer na sax ci cérémonie de gala bi ak ak link yooyu. mën na leen amal njëriñ yéen yéen aussi toujours. bien sûr parce que sénégalais yi comme niñ ko waxee rek institution yi boo gis rek dañ ko fekk sénégalais bu xarañ am doole bu fa nekk Baat tey euh, ñëpp xam nañ Amadou Hott Baat mais Amadou Hott dafa am lu mu nekkoon avant Baat. Baat hmm. soxla ko jël ko. Sénégal soxla ko jëleewaat ko Baat. Hmm tey yàlla def na mi ngi delluwaat fa mu ne woon sant yàlla tey ñoom banque bi ñoo ko invité. Euh, pour xam-xamam ak aussi pour jëriñ ci ñoom li ñuy def ci biir baat naka leen mën a defee li ñuy wax ay synergie pour que banque islamique de développement ak euh, banque africaine de développement ñu lëkkaloo pour gën a am impact bu gën a am njëriñ ci population africaine yi parce que ñaari banque yëpp leen tax a jóg mooy soxali Afrique xeex pauvreté et surtout participer au projet de développement qu'il soit vert ou en tout cas sur l'agriculture et sur l'eau et les, les, infrastructures. Parce que bon xoolee terre, bi banque islamique de développement bi BID bi moo ko financé autoroute bi ñu war a defar mu jógee Dakar dem Saint-Louis portion Dakar Tivaouane bi banque islamique bi moo qui financé. ci mhm. financement yi nekk en cours hein, mhm. en cours. Mhm. waxuñu il yi nga a qui ont na ci ginnaaw yu bëri ci wàllu élevage ci wàllu agriculture ci wàllu euh, assainissement et approvisionnement en eau banque islamique li mu dugal ci xaalis ci biir Sénégal bëri na bëriwul bëri na ci biir Sénégal. mais bariwul ci capacité wu mm-hmm. banque bi bien sûr bien sûr lañ fa duggal mu nañ fa duggal double bi adama bala ñu jéxal dama lay cokkaas rek bo mo la bëggoon ëffal ak sa jigéen euh, madame Thiam Binta Diop directrice général micro microsen organe de microcrédit mm-hmm. mo la doon ëffal ak mom no naan microfinance bi microfinance islamique ak microcrédit euh, classique ay concurrent ngeen wala da ngeen di mottalante mun naa euh, euh Sénégal ñëpp lañ soxla Sénégal banque yi duñ fa doy microfinance yi duñ fa doy parce que son économie mo ci donc aussi bien Microsen Taïsir, euh, Microcred euh, ak euh, yenen yu ñu ni mel. Mm-hmm. Sénégal da soxla. ba yi rek. voilà. islamique BND créé na tamit mais est-ce tam du problème tamit finalement bu dafa am lu ko mais bu banque classique finalement est-ce que problème yi nga ñi nga xam ne amorçage la ñu nekk. mënuñoo leen ci banque non complémentarité la parce que bu fekkente ni tey yow conditions yi nga xamante ni moom leen la war a financer au niveau de la banque classique. oui booy ñëw au niveau des microfinances. condition yi c' est assoupli. Mhm. et puis euh, c' est beaucoup plus rapide. tey dëkk bu mel ni tey si microfinance bi léegi dafa cher mosut a ñàkk cher. parce que taux taux communautaire la xaw na xaw na. microfinance mun na ñàkk cher parce que ñun ni ñuy jotee xaalis moo jafe. Mhm. moo tax structure yu mel ni banque islamique de développement wala état du Sénégal ñoo ci mun dara ñoo ko mun parce que buñ ñu joxee xaalis bi di ñu laaj ñun ne war nañ leen a fay. 5 mhm. euh, kon ñun faaw ñu tek ci ñun tamit lu ñu dundee. Mhm. lool motax tax euh, finance islamique bi ak microfinance bek bu mu ci munti doon di cher parce que condition yi ñi jotee xaalis yi mo jafé buñ ñu ko assouplir rek ñu yombalal ko porteur de projet yi pour Sénégal nat Adama Cissé jërëjëf. jërëjëf Taysiir euh, microfinance ñu dajé won fi ci Riyad qui golden jubilé jubilé cinquantenaire groupe banque islamique Nous ñort nak 50 plus 1 affaire yi génn ah ñun kañ bëgg nañ <laughs> balaa le 31 balaa le 31 mai bii. <laughs> Uh-huh. ñu viréel ñu sun 5 milliards yi Sénégal. parce que dawal dàqe ministre de l'économie Abdourahmane Sarr fu mu génnee conseil de gouvernement. ba xaalis bi dem moo ci suñ toll nii. dossier <laughs> yëpp na am nañ ci yaakaar. jërëjëf ñu ngi lay ziar bu baax. jërëjëf di yi di leen gërëm di leen sant. mbokk ñu ngi leen di gërëm di leen sant incha ba beneen yoon bu soobee yàlla am na yeneen yoon nag yoo xam ne ñu ngi ci bu sottee rek danañ dem xoolal leen la fay xew la fa sénégal sénégalais di wuti ak li ñuy indi Mm. yëpp ci sotti ci ak def ci la jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Radio Futur Média. 94 FM. Dakar.